tey ñaan yàlla boole ñu jéggal te nangul ñu sunu koor di dellu di remercier ñëpp ñi nga xam te ni ñu ngi suivre suñuy vidéo te di ñu encourager ci li ñuy def gis nañ message yi encouragement yi ñaan yi ngeen ñuy ñaanal yàlla na ko borom bi nangu te boole ñu ko ñun ñëpp def ko ay xéwal ba kenn ku ne mën ci jariñ tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo mais nag vidéo bi ñuy def dina wuute ak vidéo yi ñu daan def parce que dafa am benn phénomène bu ñu gis naam sax yàgg nañ ko gis mais dernier jour yi dañu gis ni dafa dikkaat mu jóge ci benn émission boo xamante ni si mi ngi daw TFM ñu koy woowee QG quartier général ma gis ni daal dafa bëri ay wax yoo xamante ni si am na ci suuf te ma jàpp ni wax dëgg fa yàlla jaru ko parce que gëm naa ni ñun ñëpp benn lañ donc ñun bu ñuy woote ne ay jullit lañ lan moo waral ñu war a mën a waxante lu ñaaw suñu biir lan moo waral ñu mën a joxante ay yenn kàddu yoo xam ni tegginuwul di ko jëmale ci beneen tarixa parce que boobu ba léegi maa ngi gis statut yi ñii di statut di gaaruwaale jëmale fii ñii di statut di gaaruwaale jëmale fee nga dem ci Facebook bi commentaire yi publication yi mu mel ni tey dafa am benn guerre boo xam te ne moo am ci diggante ñaari tarixa yi te loolu li ko waral mooy ñenn ci biir taalibe yi ñoom ñoo koy def mais ñi xam dëgg tey dinañ jël lépp boole ko def ko muy benn nañ jël benn exemple rek xool leen diggante Serigne Sidi Mokhtar ak Al Amin niñ meloon ñoom ñaar loolu rek war nañu mën a firndeel ni ñun tarixa yépp benn lañ parce que tey jii tarixa boo jël am na fa ay kilifa yu fa nekk am nañ ay yeneen xarit ci yeneen tarixa yi ñoo xam te ne ay kilifa lañ aussi donc mag ñi nga xamante ni si ñoom ñooy suñuy sëriñ ni ñu mën a jubóowee seen biir pourquoi pas ñun taalibe yi ñu mën a jubóowee noonu suñu biir au lieu ñun ne fi di waxante lu ñaaw lu waral kenn ku ne bëgg jël sa sëriñ di ko aj di suufeel sa sëriñu moroom lu waral tey kenn ku ne bëgg tey bu ñu waxee sa xar baaxi sëriñ nga kontaan yuux daanu te bu ñu waxee xar sëriñu keneen nga ni amul lu waral kenn ku ne bëgg a nangu li yàlla mooy sa sëriñ te bëgguloo nangu li yàlla mooy sëriñu keneen parce que quoi qu'on puisse mag ñi kenn ku ne am na loo xam te ne sunu boroom may na la ko te kenn ku ne am na loo liggéey ci réew mi kon ngalawaay liggéey boobu mag ñi liggéey nañ ko jël jéem ko sàmm te bañ ji xiiroo ak ŋaayoo parce que mënuñu jëmale fenn wax jii nii mënuñu jëmale fenn yee fitna rek la mën a def wala indi ay ñagas-ñagas ci yenn diggante yi te gëm naa ne xam dëgg du ñu yegg foofu. mais da gis commentaire yi ci réseaux sociaux yi day nekk commentaire yoo xam ne yow sax da ngay tiit sa wàllu bopp parce que yenn wax yi man gëm naa ni jaru ko te amul benn njariñ donc comme ni leen ko waxee woon rek vidéo bi tey ci point boobu la ñuy débattre ñu ànd ci aussi ak sunu benn maman ñu koy woowee maman Daba donc souvent moom ngeen di dégg muy def ay réaction ci yenn vidéo yi ñuy dugal donc ñu bàyyi leen ngeen déglu li nga xamante ni si moom la maman Daba wax ñëw continuer waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatulah wàllu xew TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tous les internautes qui nous suivent sur cette chaîne là waaw ñu bëgg a wax ci benn phénomène boo xam ne dafa xaw a bëgg a jéggi dayo te war na mun a ñàkk muy ce qui se passe entre talibé yi ñu remarqué ne entre Touba ak Tivaouane ñoomu neen la seen ñaar ñoom ñoo bokk benn maam kon nag lu rafet ba pare ñun buñ ko taawal ñun talibé yi ñu ànd ba pare ñun mënuñu ko tàggale ñun nañu def rek ku nekk. Ah, ñàkkul koo bëgg ku nekk am nga koo féeteel loolu yàlla moo bindee noonu àdduna mais taxul kenn war a euh, jël ay kàddu yu safaanoo di ko jëmale ci sa sëriñu moroom loolu rafetul te jekkul ku nekk gëmal ki nga gëm ñu boole bëgg ñëpp xam ne ñëpp benn lañu ku nekk rek bay nga sawaar ci ci Sénégal gii ndaxte ñoom ñëpp ku ci toog ba wax la ay jalooreem nga ne est-ce que kon nag bu kenn sous-estimer kenn bu kenn xas kenn bu kenn xeebal kenn sëriñam nañ bokk bëgg ñëpp parce que c'est le Sénégal nag ndax kër goo fi dugg dangay am say doom ñii say ca murit ñii tiijaan lay laayin ainsi de suite ba ci catholique sax mu am ca kon nag kon nañ rafetal rafetal rek moo ñu war mais ñu ngi am luy juddu loo xam ne di gaaralante di ay di def ay statut di gaaralante yooyu rafetul dañ ko war a bàyyi nañ boole lépp entre Touba ak Tivaouane wax dëgg yàlla dara xaju fa lii sëñ Saar wax démb rek ci télé bi nee doo gis mukk sant si te xas ku sant Mbàkke doo gisit ku sant Mbàkke te xas ku sant si kon nag ñun comme ñoom la ñu yaakaar ñooy suñu yaakaaru tey la gannaaw yàlla nañ ko rafetal te bàyyi e, diingatante bi ku nekk di xeebal sa moroom sëriñam ku nekk ka nga gëm te gëm dafa nekk loo xam ne dafa force si xol kon nag il faut savoir raison garder ak lu ñu munti waxit nañ rafetal mais statut gaaralante yi waxante lu ñaaw sama sëriñ a mën kii moo def lii loolu nañ ko bàyyi rafetul te lu ñaaw rek lay indi fii ci Sénégal te fii wax dëgg yàlla lu ñaaw xaju fi amu fi place nañ leen gën a rafetalaat waaye taalibe rek lañu dañuy tàllal suñuy loxo ñu ñuy ñaanal nañu bëgg ñëpp nañ soppi ñëpp féete fee nga féete terewul nga xam euh, nangu sa baaxu morom ndaxte nee nañu nangu sa baaxu morom du wàññi ci sa mbaax dara wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ci wax say jaloore wax la fa mu jaar danga naan est-ce yàlla kon nag nañ rafetal ku nekk fa mu féete dañ ko ko respecteel nit kenn du ko xeebal sëriñam ginaar kenn du ko xeebal oppam ku nekk fa nga xool ba opte fa nañ la bàyyi foofu buñ la buñ la euh, diingat buñ la critiquer bul ne sama sëriñ mën bul ne sama sëriñ gën loolu rafetul ku nekk gëmal la ngay gëm rek te doyloo ko ba ëllëg ba ñu xam lu yàlla di def man de moo ma gënal waaye vraiment léeg nga gis ay gaaralante yoo xam ne loolu rafetul rafetul ci deru taalibe yi dañ boole yëpp nekk benn ndaxte tey sa cousin sa doom sa sœur say rakk dañuy nekk ci beneen tarixa yow nga nekk ci beneen tarixa bu ngeen ko ñaawalee ba indi fi ay division dans ce Sénégal là te Sénégal waxtu dëgg yàlla dafa ndaw loolu xaju fi lu rafet rek moo fi xaj nañ leen ko rafetal ànd rek booloo nekk benn moo gën léegi amul benn problème kon nag ñun bu ñu fi créer problème bu ñu gisee tous les problèmes que nous vivons dans ce Sénégal ñu xam nañ ne on a d'autres priorités que di ay sëriñ bu ñu gisee les agressions les meurtres et autres Sénégal li ñu fi war a wax ak problème yi ñu fi war a régler bari na mais suñuy problème du problème mu tarixa critiquente ku nekk di xas sa moroom loolu war a nekk suñu priorité honnêtement on a d'autres chats à fouetter am nañu yeneen yoo xam ne moom lañu war a gën a mun a lijjanti faj ko ndaxte diine ji ñu ko doon liggéey def nañ ko ba yàlla gërëm leen def nañ ko ba mu baax ba mu jaar yoon bàyyi ñu ko fi nag ñun nag buñ ko yàq nañ ko defar ba mu baax moo gën bàyyi dii nga tante bàyyi xas sa sëriñu jàmbur loolu nañ ko bàyyi parce que koo xas sa sëriñam xolam jóg parce que tarixa diine moo mel noonu dafa fort ci xol ku nekk rek fa nga féete rek da nga ko fonk te lay won ne allah ñëpp baax foo fi dem ku fi woote da nga fay fekk mbooloo moo xam ne da ngay yéemu kon nag kon benn bonul ah xanaa péete kay moo mun a am mais benn bonul am nañu d'autres priorités diine ji amul problème buñ ci indi problème nañu régler les problème de sa Sénégal là les meurtres les agressions et autres moo ëpp solo di xastante jël suñu temps di ko yàq ci ay xastante yoo xam ne ñooñu lu ñu defar ba mu baax ñun mënuñu ko yàq te kuy critiquer sëriñu jàmbur mun nga ca wax ba yàqoo ca nag mun naa ne kon nag bu ñu critiquer kenn yàlla rek xam nañ leen bàyyi noonu nañ leen ànd nañ leen tàppe xol yi nañ leen boole xol yi ni ko Pape Serigne di doon waxee moo ëpp solo moo ëpp njëriñ moo ëpp maanaa yal na yàlla defal dégg ak raxas xol yi ba nga xam ne daal vraiment yenn yu ndaw yooyu yàlla bu fi juddu yàlla bu mu fi juddu yàlla bu fi am racine yàlla na ko yàlla yemale fa mu yem ci barke Seydina Mouhamed ñuy nuyu ñëpp di tàggu ñëpp. donc mbokk yi ñun ñëpp ñoo déggandoo li nga xamante ni sunu yaay booy bi moom la wax di ko jaajëfal bu baax a baax ci oyofam nga xam ni tey mi ngi jël ay xalaat yu rafet di ko partager ak ñun te mënoon ni mag la yoonam nekkul ci lii. mais à chaque fois gis nañ ko mu ngi jël ay xalaatam yu rafet di ko yónnee di ko partager ak waa àdduna yëpp pour ñu mën ci jariñu donc ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax donc di leen rappeler encore une fois tarixa yëpp benn la li nga xam te si moo am solo mooy kenn ku ne fa nga nekk la ñuy digle dee ko def lañuy ñuy tere nga koy bàyyi yenn wax yi nga xam ne nag day yàq jarul wax parce que comme ni ma ko tàmm di waxee rek lépp loo xam te ni si du jàmm jàmm moo ko gën kon nañ jéem a rafetal te bàyyi yenn waxi yi parce que day yee fitna te fitna képp ku koy yee sunu boroom mi ngi lay rëbb kon nag ñi ngi dellu encore une fois di tuub di jégalu képp koo xam ne sunu video bi liñ ci wax laal na la ñu ngi jégalu bu baax a baax lépp lu fi jub nag ngeen xam ne ndimbali borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que doomu aadama moo matul donc ñu ngeen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah di ñaanal ñëpp jàmm.